ci kàddu yi nga xam ne yëgit na ko moom maître Ciré Clédor Ly nekk kenn ci ñiy layal Ousmane Sonko moom nag nee na juge bi dafa war a rek li nga xamante ni moo di Ousmane Sonko cene mu gën a gaaw moom maître Ciré Clédor Ly nag ni ma leen ko waxee bokk na ci ñenn euh, avocat yi nga xam ne dañooy layal kii di Ousmane Sonko moom nag euh, yëgati na ay kàddoom ni ki ba jëlee gannaaw bi nga xam ne nag procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr euh, wéy na ba jeex ak aussi kii di procureur de la République nag demandé ay peine yu diis lool teg di ko sàkk ci juge mu daan ko kii di client am di Ousmane Sonko jamono bi le nag mu nekk foofa ca Ziguinchor ca wetu client moom avocat bi le nag ñëwaat na ci procès bi nga xam ne nag mu ngay woy di jur coow gannaaw la ñu fa déggee mu jëfani kàddu ak réquisitoire wala sax réquisition yu procureur nga xam ne def na ko nag moom mi demandé benn peine bu toll ci dix ans de réquisition criminelle pour viol wala juróomi at pour corruption de la jeunesse ti ki nga xamante ni ñu teg ko wala sax ñi daan ko kile di Ousmane Sonko di client moom si de Clédor Ly moom nag nee na eh, dañoo yàgg di wax ne eh, dafa am li nga xamante ni moo di ab viol ñu koy toppee Ousmane Sonko waaye aussi eh, complicité de viol lañ doon toppee kii di Ndeye Khady Ndiaye nee nag su fekkee ne procureur dafa incertain maanaam li muy wax dem na ba dara leer ko ci loolu dafay signifier rek ne compte tenu yi maanaam donte les seen client di Ousmane Sonko dañ ko juge en contumace maanaam woon ca salle ba loolu dàqul benn yoon acquittement maanaam bi daf ko war a acquitter rek. rek na mu gën a gaawe en toute responsabilité loolee di kàddu yu maître euh, Ciré Clédor li mu yëkkati ko ci euh, sunu naata nekk foofu ci RFM moom nag ba tey bu ñu sukkandikoo ci kàddum rek ba mu ñëwaatee nee nag jamono jile euh, juge daal ñu war a assumer seeni responsabilité ndax dossier bi du lu vide la procureur moom ci boppam dafa jox ki nga xam ne moo di juge bi lii di solution ngir nag mu mën a acquitter kii di Ousmane Sonko te nag nee na Sonko donte le sax euh, dafa nekkoon euh, dafa absent woon maanaam teewutoon euh, ca procès ba loolee day waral nag ne moom mënut def appel su ci jugement boobee su fekkee condamné nañ ko maître Ciré Clédor Ly nag moom daal di nay jeexal discussion yi gannaaw ba mu souligné ne rek Euh, bu fekkee juge bi euh, indépendance am na si ñoom ak impartialité acquittement mooy solution bi ndax àdduna yëpp siiwu nañ projet bi euh, gis nañ ni amul dara loo xamante ni lu fa am la lu ñu mën a toppee ak doomu aadama te ñoom nag nee na nekkuñu ci benn logique def appel si les acquitté ñoom nag nee nañ pourquoi ñoom ñuy def li nga xam ne moo di appel loolu di laaj bu mu samp moom maître Ciré Clédor Ly en tout cas nekk nay kàddu yu mu yëgati di ñu xamaa rek ni daal mbir mi réquisition yi nga xam ne procureur def na ko ngir la muy jëm a sàkku ñu daan ko kii di client di Ousmane Sonko jàpp na ne ak solution la bu mu jox juge bi rek ngir mu mën na acquitter seen client ca na mu gën a eh, yombee en toute responsabilité ndax nag moom mi la jàpp na ne la nga xam ne mu am fële ci tribunal gisul dara loo xam ne war naa mën a tax ñu daal di